tooga boo xam naa ne xamoo leen ma mais man la kalama kalamu kalamu xaalis ndaanaan euh, bon dafa am ñetti gars yu nekk sama kër euh, ma bëggoon ngeen ñëw génneel ma leen ah ay gars sa kër nga génne leen loolu wool police mais kii neex bul xalaat ah naan police mais yow nga keesa ni mees de naan ñu taj nii ok d'accord ñu tëj wax jooju ah. ñetti gaay ñoo nekk sama biir kër ay sacc lañ ma bëgg ngeen ñëw taxaw sama buntu kër way ma parce que man xam naa ne bu ngeen ñëwee way ma dinañ génn bu ñu génnee rek ngeen yuuxu sàccee. non loolu moom bu ci am dara looy xaar. bu ma nee ter àdduna ñëw. mais yow est-ce que buñ yuux waaye yuux ba sonn dinañ génn. mais bañ a génn ñooñu xam naa leen suñu génnee am naa boxeur boo xam ne dina leen jàpp dóor leen ba ñu tëdd loolu laa bëgg. yuuxu moom loolu du problème bi neen yuuxu ba ñëpp ñëw mais liñ bëggoon kay nga boole ñu si dóor yi foofu gën a nooy mais yéen ay géwal ngeen te géwal loxoom dafa nooy oh. ah yéen galañ yi ngeen yor di tëgg sabar sax moo gën a dëgg seen a gis boxeur ah xam la lan bëgg ah non damaa bëgg nga wax ma li nga bëgg dangaa bëgg ñu ñëw yuuxul la génn sa buntu kër waaye la ñooñu génn bu laalee buntu rek ñu génn non libéral mu ñëw toogal kilifa ngay waxal yow tamit ah. waaye man mais su ngeen namul dara fekk ngeen fi kalama lu way gatt deg deg yaa ngi dégg kalama kalama ah mais dama bëgg ngeen teel dama bëgg ngeen baña a échec. loolu kay bu nga bu ñu laalé buntu kër gi rek yuuxu leen. yow loolu bu ci am du la metti yow libéré la yaa parce que man xamna leen ndax ñom dañu gaaw. na ngeen yuuxu ci kaw. bala ñuy laal buntu bi ñu yuuxu. ok voilà merci ah. <laughs> mais nag kalama di kalama. kalama kalama kalama. معقول جيم akaba ci jël ay du lii laa leen doon wax mel ne waa ji moomul kër gi depuis le début maa ngi leen koy wax man kanamu triant su ma ko gisee dama koy xàmmee waa ji moomul kër gi oui ma wax naa leen nee naa leen kër gi ko moom jigéen moo ko moom maanaam moom kër gi ba ba tëre si laa dëkk paa bi paa mënoon dàkkat bi naan maanaam jàllo wuy ma li ngay def di wax dara ah, leer ah, na non noonu non non leen moo leen wax ni madame Diallo boobu du jabar saay ah, non kan moo leen ko dara kon dëgg ka moom rek eh, grand grand xam nga ne loolu nan la jabar yow nan la ko jabaram di may kër gi mu koy bokk ak ay inconnu ñoo xamante ne xamu leen xam nga li ngay wax ni nekk mën na nekk kay yow ma male ma ñoom xanaa mooy jigéen dafa baax jigéen xool baa nice jigéen mooy suñu yaay yow sa doon wax naan jigen ben ñaar ñett kenn du jigen dinan ga góor baxna na wantam jigen a tax kenn du jigen wa léegi loolu sax garaaw nañ ko bàyyi léegi euh, xam nga suma ànd man ak yéen yàgg na trop mais leer na na len ni duma sen morom dañuy ànd ni rek mais duma sen morom xam nga li la malheureusement damay damay damay damay tak jabar ngoon monsieur sëy lan ngeen ni de grand lima ma wax dafa leen def ay léppoon léppoon aw ma na fi naanaan ba ma da ngay lépp de baa ma daaneel baa ma daaneel bu ni nu di trahir quoi yow mau woo nga naa ci wa wa nga naa ci goxu soow wala wala lu ma jaaxal waaye sa jabar foo koy teg. booy déggoo li ma sama ànd ak yéen fii ini yem da ngeen di génn néeg bi. da ngeen génn bu waaw bu baax lu ñuy def fu nga sëy ma woo sa bàjjen ma woo sa topp. booy woo sa topp. yow da nga reew de non dama lay wax de da nga reew bu ma somoro. dégg nga li ma la booy waxal ak booy. ma ma woo waa sant woo mbékkee fa wala bàyyi dama diir. wa ma caam. dañ koy diri cin cin cin. kii nga bu bëggee dina def ma boo déggee sama bongo maan yi tëgg ba yuuxu sàccee rek ñëwal nga dóor. eh kon ñoom dañuy xam ne man du ma avocat. yow loolu lu ma sa yoon wala yow amoo droit dox dégg ñu yuuxu sàccee nga dóor amoo droit boobu xam nga yow da nga tàppet da man bugguma ku lewet ah, lan ngay ragal exposer sa bopp ah mais yow doo dindi sa affaire yi ngay dóor dama bëgg ngay dóor man loolu laa wax. man ma xamal la benn affaire. man du ma ragal de bis bu may dóor samay dóor du yam tant que dóor ma ba mu dama ba dégguma karaj du ma arrêté. waaye ban karaj man karaj taj laa bëgg a dégg nga naan ma karaj ah mais yow nan ngay tollee nii nga toll macha allah doo exposer sa bopp ah mi mais nooy nooy nooy ah, yor xolu jigéen comme ça nooy dama bëgg nit ku soxor man di dóor man fi may gis ni assasin laa man dama soxor mais comme dama soxor faaw nga soxor mais ay baax baax baax nañ ko jël te ko nee baax moo fi jeex. del dore del dore te gis nga bo dof dof lo ba raté coup bi sama digënté ak yow fi lay yam dé ndax dé nga bu baax way et puis euh, kay kay ba ni bo gisé ñetti coin yoy indi seen attaay bi kérok man lañ bëggono a poisé te xamuñu né man du man n'importe qui nit ki boko ko xamul é eh, nga koy woowee surtout Cheikh Tidiane Diop ak Modou Mbeng la namu matara dara dëkk Mbengeen ak Paxa Saw guy ga ca biir dëkk ba maa ko fa samp yàgg faa yëkkati ndaanaan dóor fa ndaanaan te fu ma lu ma nit def suba ba ngoon ci sa kaw lay dellusi. waaw waaw naa man dama bëgg kuy dóor. naay ah. dóor waaw naay dóor. mais dóor lewet takkal say bët fatt say nopp gumba tax lu del dóore saax saax dóor. oh. da nga yomb quoi yomb yomb comme yomb.

yaa ngi comprendre te yow sax yow fan nga jëm yow. kan man booy damay takki ñaareel. dagam aw ba am yow booy comprendre man du ma commencé par par man du ma yëg di wàcc. non non te te te te commencé ñeente ba xam. yow wuy ma en tout daal booy ku baax laa bëgg. en tout daal ay dama dama ma en tout cas fii jigéen du fi dëkk jigéen du fi dugg man ay yow ñoo moom kër gi ñooy rey. karaama borom kër gi ne rey faat ko. yow munoo bàyyi rey. nan ngay faat yow bàyyi rey. tool may bàyyi rey. léegi daal lenn la ñuy def bi signé ko ñu éliminer waa ji wala ñu def système scientifique. boo baaxu boo baaxu bàyyi boobu. léegi daal li ma leen di wax mooy kër gi moom mu ñëpp mënuñu ko génnandoo. sinon gis nga cellule yi kanu cellule yi. waaw waa ji daf koy changé ubbi yeneen caabi yu bees. te du ñu am accès ci biir kër gi. nga toog kan mooy toog.

yëngal leen na yëngatu ah na yëngu foofa jooy eh. wuyaay ku doon laajte faali jooy da yegg si na ey ku doon laajte faali jooy da kay nekk leen ci rek nekk leen ci xoola maa ngi seen naa leen léegi seen naa léegi kenn kuy traversé yëngal leen rek waaw yow nekk ci rek nekk ci rek dinañ ñëw de a ah, baax na waaw waaw waaw déet déet saay bu waxee noonu bu leen dem yow koy yëngalal rek man xam naa ne da ngeen am programme waaye bii tamit programme la. boobu léegi kenn génnul. voilà buñ ca gàccee beneen 30 minutes kenn génnul la ñuy dem de ndax ñu dañoo am ay programme yeneen ñu war a séy ah. su ma bee bundu gën xanaa dinañ am xelu ñëw tëjaat ko bu ko defee ngeen yuuxu sàccee foofa toj maa ngi ñëw. waaw yaa ngi wàcc waaw.